waxtu xibaar yi jot na ci Sénégal 5 TV bisimila ñu door ko ak la ca gën a fës dina ci bokk parrainage bi nga xam ni nak lu soxala calendrier bi dañu ko daal di rek euh, soppi ndax dañu ko jàppoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août euh, ndorteel li nag kon xam leen ni rek euh, ba ñaar fukki fan ci weeru septembre bi ñu jëm dina ci bokk itam lu soxala janoog taskatu xibaar yi nga xam ni député yi fare ca yeewi askan wi ñoom ñoo ko doon amal niki tey ñoom ñee nag ci seen boobu boobule janoog taskatu xibaar yi ñoo ngi rek condition yi nga xam ni Ousmane Sonko nekk na ca ak yeneen détenu politique yi euh, ba tax nag ñuy daal di woo nguur gi ngir nag mu daal di euh, teggi loxoom waaye itam mu daal di euh, taxaw ci bëgg-bëgg askan wi dinañu àddu itam ci lu soxal opération bi nga xam ni waa douane ñoo ko doon amal ñu tuddee ko opération de bouclage ñu jàpp ci nag ay garab yoo xam ni nee nañu baaxuñu ñu xayma ko ci ñetti jun téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar si ay millions ba tey dinañu wax ci Euh, bus euh, rapide transit di BRT euh, moom nag député niki tey lañ doon amal li nga xam ni moo di essayage bi fii ci Ndakaaru kon moom mi nga xam ni moo di BRT bi daw na niki tey ci altine ji daañu woyal itam daal di àddu rek ci li nga xam ni moo di Yacine Diagne moom nag jàpp jamono ji jàppaleen ni mu ngi ci loxol yoon moom mi nga xam ni mooy chargé de formation di mouvement jigéeni Pastef mi ngi ci garde à vue foofee ca brigade de recherche bu Ndakaaru ba tey li Euh, moo di euh, mbirum mërs ñu si àddu ak fukki euh, xale yu góor yi nga xam ni dañu leen a teg loxo foofee ca cité Mixa bi nekkee ca commune Patte d'Oie ñu jàpp ni nag ay borom ñaari tur yi lañu kon mbokk yi ponk yaa ngi noonu bu ñu toppee neskis ñu daal di koy faram-fàccee xibaar yi dañu koy door comme ni ñu ko junjee woon ci ndorteel yi ak lu soxal parrainage di nag nombre bi nga xam ni dañ ko war a am ci ay signature ñoom ñi nga xam ni ñoom ñooy ay candidat studio yi nga xam ni ca la ñu jëm ci atum 2024 lu soxal nag yooyu les parrainage ndorteel li dañu ko jàppoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août boobule date nag dañu ko daal di euh, dàq ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, septembre mu mel ni date bi nga xam ni moom la ñu jàppoon dafa nekkoon ci code électoral bu 2021 ba tax na nag ñu daal di koy toxal gannaaw modification yi nga xam ni am na ci article 29 bu constitution bi kon euh, nga xam ni ñi nga xam ni ñoo ay candidat yi war a bokk yooyu lay jongante ñetti weer la ñu amoon ngir seen i parrainage jamono ji nag ñaari weer dongul moo leen dese euh, di ñu wëyal ak li nga xam ni moo di euh, député yu waa Yewwi Askan Wi ak euh, ndajeek taskatu xibaar yi nga xam ni doon nañu ko amal niki tey ci suba si boobule conférence de nag wax nañu rek ci situation bi nga xam ni njiital Pastef ba woon di Ousmane Sonko daal dina ci nekk na ca maanaam situation bu métti bi nga xam ni mu ngi koy dund ak yeneen détenus politiques yi ba na nag ñu koy ñaawlu bu baax baax si noonee nag ñuy xamle ni euh, gouvernement bi jógul rek di xoqatal wala nag di métital doomu Sénégal ba tax ñii mu daal di leen di jàpp te li ko waral nag mooy dañoo bokkul ak ñoom gis-gis ku ci mel ni Ousmane Sonko anibal Djim Cheikh Bara Ndiaye nit doof ba ci Fadilou Keita waaye itam ñenn ñi ñu daal di leen di exilé wala sax ñu daal di gàddaay ku ci mel ni maître Ngagne Demba Touré loolu waral nag ñuy daal di sakku ci gouvernement bi ngir mu delloo si euh, xelam waaye nag mu euh, teggi tànkam te nag mu daal di jokk ci jafe-jafe jafe askan wi lu ci mel ni immigration clandestine inondation ba ci nag njëgal euh, ndugg njëgal euh, denrée de premier nécessité yi nga xam ni seer na trop fii ci euh, réew mi ñu woyal ak waa douane ñoom nag liggéey bu rëy rëy la ñu def ndax teg nañu loxo lu toll si ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ñaar ci ay million ñu xayma ko nag ci faux médicament yi nga xam ni moom la ñu jàpp mu mel ni nag seen boobule seen boobule rek liggéey saisi boobu maanaam rek dafa tombeek xam ni moo di opération de bouclage bu bi nga xam ni moom la ñu amaloon ci weeru juillet bi euh, muy nag benn loo boo xam ni nag ay médicament euh, yu bëree bëri moom moo ci nekkoon mu bokk ci ay aphrodisiaque euh, foofe nag ca mbaaw la ñu ko jàppee ak ci dëkk bu ñu naan dundee nekk ca département bu Kanel ñaari doomu aadama nag lañu ci daal di teg loxo ba tax administration des duwaan ñoo ngi rek daal di dalal xelu askan wi di xamle ni tey lañ gën a dogu rek ngir xeex ñaawteef yooyu le ci mënti doon xam ni moom la ñuy jaay ci moom la joxe ci askan wi ndax nag mën na leen indi la ay euh, jafe-jafe ci seen wàllu ko yaram waaye itam ci seen wàllu xel ñu wëyal rek daal di àddu ci lu soxal euh, li nga xam ni moo di bus rapide transit mu mel ni nag démarrage bi amal nañ ko bis ni tey ci altine bi euh, kon nag oto yi nga xam ni ñoom ñoo war a nekk rek ci bus rapide transit bi tey nag teste nañu leen si yoon yi nga xam ni ñoom la ñu leen jagleel mu mel ni kon am na si sax yoon yoo xam ni loolu dañu ko amal rek ngir euh, xamal ni li nga xam ni moo di BRT bi euh, dina daw ci décembre deux mille vingt bi nga xam ni ca la ñu jëm euh, ñu woyal ba tey ak Yacine Diagne moom nag mi ngi ci loxol yoon moom mi nga xam ni moo di chargé de formation au mouvement jigéenu PASTEF moom nag mu ngi ci garde à vue ca brigade de recherche bu Dakar li ñu koy toppee mooy association de malfaiteurs ba noppi nag ñu ne dafa bokk itam ci groupe terroriste waaye itam acte ou manœuvre boo xam ni dafa compromettre à la sécurité publique. Yacine Diagne nag nee ñu dañu ko soupçonné euh, si nag li nga xam ni euh, mooy ay euh, échange yoo xam ni amal na ko via Telegram di nag coordonné ci li nga xam ni moo di jëndum lu toll si deux cent cinquante heures ak ba ba tey itam nee ñu defa lié ci groupe bi nga xam ni ñoom ñoo lakkoon post autoroute bu APS bi ñu jeexal ak li nga xam ni lu doy waar la mu xewee ca cité Mixa ba nekkee ca commune de Patte d'Oie muy nag ki xale yu góor yoo xam ni dañu leen a teg loxo police daal di eh, jàpp ñoom nag dañoo jàpp ni ay eh, góor jigéen la eh, ngeen baal ñu si tur yi borom ñaari tur lañu ngeen baal ñu si kàddu gi mu mel ni nag ñoom foofee ca cité Mixa dañu faa dajaloo woon rek ngir féete li nga xam ni moo di 15 août bi mu mel ni nag ba ñu jëlee seen ay téléphone doon ko dañoo gis nag ni ñoom dañoo bokk ci benn groupe whatsapp boo xam ni ay borom ñaari tur ñoom ñoo ci nekk groupe whatsapp boobule nag nañu ca états internet yi xibaar yi buur nañu jox leen dig dig dajee ëllëg ngeen jëf